jëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokk yi dof maam xalifa laa fekk ci tey mais dama ko fekk ci anam bu ma ko mës a fekk damaa fekk mu teg li nga xamante ni moom mooy ay leget teg ay teg li nga xamante ni moom mooy ay béjjën teg siwo nag duy ci ndox euh, tey euh, anam bi ma ko fekk dañuy wax naan lii ca mag ña lañ ko daan dégg mbokk yi lii mooy cosaan lii mooy gàllaaj gi nga xamante ni buur ya ñoo ko daan jëfandikoo kon dofu maam xalifa tey andi na la nga xamante ni loolee la mag ñi daan andi li ko waral bokk na ci ah, fi Sénégal toll fi tension yi toll saagante yi waxante lu ñaaw xasante bi sëriñ ci seen biir ah, ñenn ñi di doxalee noo xamante ni tey yaakaar naa ñu bëri tax na gëmatuñu ñaan waaye tey cosaan la andi sëñ bi li nga andi nii tey bëgg naa nga gannaaw ba nga nuyoowee nga wax sénégalais yi lii lan la. auzu billahi mina shaytaani a bismillahi a rahim. alhamdulillahi waahidil ahad allazi lam yalid walam yulad mbokki jullit yi mbokki àdduna alaaji dégg daaj seen Médoune maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte kontante di jàkkaarloog seen seen bu mag bi di nuyu senegam Sénégambien yëpp fu ñu nekk di leen ziar di leen baalu àq di leen baal àq alaaji dégg daaj lii nga gis nag du la jaaxal ndax yow xam nga kër gi wante dina jaaxal mboolem koo xam ne mi ngi koy soog di gis ci ñun dañoo am ñaari facette am nañ facetu ceddo buñ ne facetu ceddo nag mooy xam bu ñuul bu tënku ci ren ak i fas tënku ci ay jataki jalang moom lañ njëkk a xam waaye teg ko fa dem jàngi li tënku ci alquran tey nag ñu indi loo xam ni alaaji dégg dama am lu ma métti ci réew mi te kenn teguñu ko ku dul suñ mbokki sëriñ si ba muy ñetti yoon lépp lu ngeen war a def yéen yéen koy def parce que ku ngeen dégg na man na dangeen ngeen ko oo dalal ko waaye fa ngeen di amee sax yéen fa la réew mi yëpp di amee déception après nit dafa war a wax lu ko wóor nit dafa war a wax lu mu xam nit dafa war a wax lu mu gis dafa am ñaari fasat dafa am koo xam ne saytaane moo koy dee muy achayatin am koo xam ne yàlla moo koy wan ki seytaane di dee toujours dafay indi melaw loo xam ne mën na laa dikkee melaw melaw loo xamul nga xëy yaakaar looloy am nga xëy wax ko mu dikkee la ay ay naru neen am na koo xam ne nag yàllaa koy dee lu la yàlla dee du du du hasard ndax inna allah yaxlamu xayba samawati wal ard yàlla moo xam ne ne bu ci asamaanu juróom-ñaar ak suufu juróom-ñaar ku ko xamal nga xam ko te soo ko waxee benn wax ko ñaar bu ñett bu lay dëkkal yàlla dëkkalatu moo tax ma nit dafa war di wax lu mu xam li waral lii nag askan bi dañoo commencé doyadal li ñuy wax sëriñ te yàlla ne wala tafaraqu bi hablillah xool leen ci buum gi leen di jàllawle pour ngeen yegg si man yéen naa mënu leen yegg si seen bopp ndax tey boo amoon téléphone te amoo puce doo oote il faut nga jënd puce pour puce bi jàllale la pour nga mën a ko ki nga soxla mooy lan mooy téléphone lu mu am valeur am valeur téléphone de puce ko gën a seer moo gën a seer puce kon waaye nag li mu gën a seer puce gën a seer puce puce valeur la ci biir téléphone ndax bu ci amul doo doo kon nga mën cee déggee ne ut leen ñu leen di jàllale ci seen ci seen diggante seen borom ci wàllu ñaan yàlla ci wàllu taxawu leen ak yudut yooyu noonu li waral yëpp ma génne ko nag dama commencé dégg ci réew mi te di ko gis ñu commencé yàpp kilifa yi commencé yàpp sëriñ si di di di dugal ci bopp tubaab yu ñuul yi tubaab yi ñuul yi ëlbidi ko di ko dugal seen njaboot naan ñaan yàlla amut te ñoom ña lay wax loola da ngay xanaa ki dàq ñaan lu euh, sëriñ bi mooy ki nga xam ne ay million mi ngi ko wër kooko dàq kooko war a gën a ñaanlu yàlla ndax kooko la ñëpp soxla ki yorut wala daf bi taxawaaru ci mbedd mi kenn soxla wu ko ma ne nag tey danaa génn xam-xam yi nga xam ne maa ngi ko dondoo ci sama maam Alaaji Babacar Niass sama maam jox ko suma waajur wu góor sama maam nekkoon deuxième xalifa général bu kër maam xalifa Niass du xam-xamu coomo du xam-xamu gone yooyu nag buñ ko génnee génne wuñ ko nii lu dul di tiital nit ñi de waaye dañ koy génne wan nit ñi ne leen ndox fa mu daan taa boo fa demee fekk fekk fa tepp-tepp six ans maa ngi ci réseaux sociaux internet. kama àndoon ci politique ba tey moom laa ànd ak moom. ràlliwu ma déwu ma ma ranalu ma. kon kooku lum la wax nga war koo gëm benn. ñaareel ba mosuma dem vaar. mosuma fen askan bi mosuma waxee lu ñu niñ tegul bët. te du ma wax mukk sama naf si bakkan lépp lu may wax lu ma leer la ku ci bàyyi wut nag du waxee di waxee lu dul sa naf si bakkan gis loo bëggut a gis wala loo warut a gis rek alaaji dégg benn bu ci nekk nag danaa ko wax sénégalais sa njëriñ ne dikkal kii bu ko mag ñi daan wax moo nekk palteef sunguf gii ngay gis sungufu kàdd la kàdd kenn du ci yéegee naf si bakkan ñëw rek ñarax ñarax yéeg ñarax ñarax wàccaat rek eh, sungufu kàdd la mhm. moo nekk nii alaaj medun mag ñi ba ñu la daan fal la tànk ci ndox mi mhm. sotti ci sotti ci njaqali mhm. laaj la sa tuur ak sa tuur ndey nga wax ñuy yëngal di yëngal di yëngal ba mat tuur yeñ soxla tànqaat defaat ba mat juróom-ñaari yoon ñu jël na la enul njaqali nga enul njaqali ci ànd lañ ko daan teg gis nga ko ànd bi du tàng waaye day am doom ñu teg ko ci ànd nu cuuraayi jërjëree noonu la say mbir di moo xam loo mën di sàkku ci biir lii nag ñu ñëwaat fii boo bëggaan wërsëg mag ñi dañ daan ut sunguf wasoor guñ ut altine ak timin timin pëli naan ko belwér ngër nga boolente ko ñoom ñaari su ñoom yooyu noonu boo àggee am na loo koy jëndee moom wasasoor ak timin timin altine lañ koy jënd boo àggee teg ca la ngay jënd rocci sànni xob yi sa gannaaw yi dëpp baaxut yi féetoo asamaan taanaay de di yóotu wërsëg yooyu ngay jël weer ko ba mu wow comme nii nga dëbb ko boole koog lim ci lii laa fi Qurayshin boole koog lim ci isa waqaatil waaqia boole koog lim ci ci ay mbir inaa fatan la ko fatan mubinan mubinan goo yegg nga am loo ca teg ba pare boolante ko kaase ko ko mag ñi nag boo ñëwaat ñu defal la ko ci njaq 3 kilos yii def nii sotti sottiwaat sottiwaat laaj la sa tur ak sa tur ndey nga wax ñu yëngal diikim diirim kayra la ko tum miita miitum tum tun mamaanin munsurun nasirun sarafin wa amirun ibnu jaabirun wa masirun wa saabiun ba juróom-ñaari tur dina yi njëkk a tur ci diine islam jeex ñu am yeneen i mbir nag yoo xam ne dama ko wax ci télé boolante ko ak moom jox la ko ne la demal ci wurmbal bi ci gannaaw boo déggee wurmbal mooy sàkket ba nga sangoo ko bu subaa nga ñëwaat bu gannaaw subaa ñetti fan kenn mënul muusa waane bala ñu séddale ci fan bi nekkul yaa koy joxe da nga daan gis sa yaay ñëw jaay sëru rabalam ñëw jaay ay mbir ñoon damaa bëgg sama doom ji dégg daaj tekki jox sëriñ sëriñ na ko bu subaa mu ñëw mu def loola sa doom nag tooñ na nit wala mu dugg ci problème wala tuuxidu na wala police du ko war lu mel noona mu daw ñëw lii cuuraay ak santang la ñoel demal nga ut santang nga ut santang ñëw kii wu ne ñu am ñu am luñ ca bind fa boytal la si kafara am beneen baat bu ñu ca teg am beneen baat lu ñu ca teg bu ñetti baat ñu ut ñetti santang yu mel nii teg ko ci ànd muy jër-jëri buñ paree ñu boolante doom yooyu am loo bind boo amee loo bind mooy lu ñuy wax fay wax nga boolente koog saafara sax mu jël tame ba te féetoo ko ca kaw jël saafara sotteeg ko ko wax jooju ko ci waxati de nay ay milliar yu lay toppee. dégg xam-xam mi ngi fa daan ne. nga ñëwati ci njaq gi nga ne ma njaq gi lan la ma ne la lii su nga fa xay la xay gu sax ci armel juróom-ñaari xay yu sax ci armel moo ne nii. boo ñëwaat ne damaa bëgg kaaraange ku ma laal de waaw ku ma soo ku ma sóoru daanu. koo xam ne bëgg na ma maanaam bëgg naa ñëw sama kaw bu mu yegg si. kii la ma ngi daan ooyee ñag gi. maanaam da ngay ñeg sa bopp képp kenn du yegg si dañuy wax si yow rek waaye du yegg si nga jël ndox mbattu maa ngi nii nga jël ndox nii sotti ci sunguf si mi ngi nii sunguf si yëpp dañ koy defar ba pare boo ñëwee sotti defar la ngay defar yëngal képp ko la laal dee alaaji dégg nee naa la man man ñi doon wax ci man waxatuñ hmm? ñi doon jéem pour yegg si yegg si wuñ waaw alaaji dégg man yoruma armé ci armel la sax mi gis nga ko ma saxaar ci armel la sax sunguf si sax ci armel la sungufu xay koo jox ku ko liggéey de ku ko fexeel de barke Cheikh na Tidiane yi nga ñëw nag ci bayra bayra yi nee naa la man ba may bëgg Ousmane Sonko de ànd ak moom réew mi yëpp dañ ko bañoon réew mi yëpp ko bañoon ma taxaw ne réew mi yëpp danañ ko bëggaat fu mu oo réew mi ñu uyu ñu uyu si ko ñëpp na sañ ba dafa dof ndax Ousmane Sonko nii Ousmane Sonko naa kilifa diine yi ñii ñu ñii am ñu ca jël kilifa aada yi am ñu ñu ci jël kilifa cosaan yi am ñu ñu jël am ñu taxaw ne Ousmane Sonko terroriste la Ousmane Sonko ébaadu la Ousmane Sonko wax ju ñaaw ju ne ñu jël taxal ko ko maak sama waa ji maag sama waa ji maag sama waa ji ba 90 pour cent ci réew mi ñëpp daw ne ko yow la yow la yow la ma rocce ko mel ni du man nag te fekk waajaa ngi ni toog làqatuwuma nëbbatuwuma tarfu tarfuwuma utuma garde corps du ma wax lu nit di weddi càngat gu mag gi nag gu mag gi bëgg ko ku la gis bëgg la tawaan aw karaan lay leen aw naxaaran fii kullu zamanin wa makaanin mooy ku la gis bëgg la mu koy neex ak mu koy naqadi ci guddeeg bëccëg nag fu mu la gis bëgg la buñ fo buñ envoyé sa photo amul lañ lu mu cay lu dul lu baax képp ku wax ca moom lu bon sax ñu saaga la ndey wala lu ñaaw mooy sunguf si sunguf si nag kéemaan bi mu kéemaan maam dafa jéggi dayoo dalal ma ko alaaji Medoune mais ni fuuree doy na sunguf balaa baax day fuur li may wax nii sama mbokki sëriñ si ñoo ma ko gën a xam kii boo koy defal nit lii lay ànd ak. ruuxoo lii lay ànd ak nga yëngal di wax turam di yëngal di wax turam di yëngal di wax turam di yëngal di wax turam di yëngal di wax turam di yëngal di waxturam turam di yëngal wax turam di yëngal di wax turam di yëngal di wax turam ba mu fuur nga jël jox ne ko am ku la bañ dee képp ku la gis bëgg la. lii la fi mag ñi bàyyi woon. Macky Sall sonn sangoo woon. bu ma joxoon ay milliards du jot. kii kenn laa ko doon sangoo kenn laa ko waroon a sangee ci politiciens yi te sangee naa ko ci ruuxam sangee ko ci xelam sangee ko ci jëmmam ba réew mi yëpp bëgg ko muy Ousmane Sonko man moom rek laay ñaanal aw ma soxla ci keneen. lii ko jox président Macky ak jëf ju rëy ji mu jëf dëkk bi jamono sëriñ bi xam nga ñu tax may wax tey ñi sonn di dem fu nañu leen di nax bu ma dugal fu ma bëgg te dugal aji dégg chaque jour nga yàq waxtaan wi bul yàq waxtaan wi ne woon naa la fi ne la bu ma laajati di nangam nga commencé ma laajati din naa samay rido ñëwati nga dikkati nga fekkati nga ma fi nag man Pastef pire et la bu la balan laa sol bu ba balaa laa sol. di fàttali ko sama maam Abdoulaye Wade bi nga xam ne moo njëkk nekk ñëpp Pastef. maa ngi lay xaar ba pare nag yore yat yu nga xam ne nii. sama sama benn benn góor moo ma ko jox. te digg àll Saloum ba. fanaan nag moom juróom-ñaari fan. Mm-hmm. ci garabu soto fa nga xam ne màggatu jinne fa la ñu jox ma ko ne ma képp koo ko joxoñ aajoom faju kon yadu waa ngi noonu mooy sëñ bi euh, dañuy gis ne yu euh, fay am na wax ju mu wax euh, ca Masaalikul naan ci nganuk siñ Moussa Ga Moussa nganuk sëñ Mountakha bi ki nga xamante ni mooy président Macky Sall mi ngi toog daf ko gërëm waxal ko lu baax mais Sénégalais dafa mel ne wax jooju am na ñenn ñoo xamante ni ba tey ñu ngi ciy critiqué. waa ji dégg Mbackiou Faye dañ koo jiital mm-hmm. li may njëkkee ca moom moom moom wax ji mm-hmm. mooy. su ma su ma su kilifa laa ko mën a wooyee ndax sëriñ mun taxa Basiru kum jiital kilifa laa lay laa ndax kilifa la ci diina ji màkk yu fay état mënul ko mënu laa jox loolu la sëriñ Touba joxut état mënu laa wan lu la sëriñ Touba wanut mu mënu laa teg fu la sëriñ Touba tegut ni Dakar toll alaaji dégg mi da bëggoon na sëñ Muntaxa jiite ko man mi bëggoon naa mu jiital ma sëñ Medoune mi bëggoon na sëñ Muntaxa jiital ko mu romb fi mu romb ñu fi ñun ñëpp te gis ñu ne ko màkk yu fay kaay na la sama mag jiitalee woon ma jiitale waat la ko min ka ilayka la jiital ko moom waxal na ko boobu Serigne Touba defal ko lu mu defalul kenn wala defal ko defal ko lu bokk ci lim defal ñëpp muy lan muy jël teraanga àdduna teg ko ci loxoom mu yore milliar ba man koo joxe addi ci yoonu rit kon état mun laa jox lu lu fënk sa bët ak lu manti kaa xew mënu laa jox lu fënk sa bët ba muy ñetti yoon foofu côté boobu yaa ko moom beneen côté bi mooy man laa yaskuru naas yaskurullahu la ku dul sant nit doo sant yàlla maa gën a kontuur Macky Sall waaye nag nit su la defalee teraanga te waxoo ko fa la ko defalee ah su fa jógee de mën na ne mën na ne doo gor loolu mën na ci nekk beneen bi ci desit moom yoonu murit Macky Sall mënu cee def lu ci Ablaye Wade defut lépp lu ci Macky Sall def benn Ablaye Wade def na ci téeméeram mooy pak bañ tabax Masaalikul naan ba tey nit ñu mën faa jullee muy yeneen ak yeneen yu ñu mën a wax kon tey kilifa bu jiitalee nit nit koo ko sant sant sant sant ko afam mm-hmm. ko war a sante nañ jàpp ne kilifa gaa ko wax rek mm-hmm. ndax kilifa yi yàgg nañ di sant homme de politique yi mm-hmm. te coow di jub kon bu kilifa jiitalee nit nit koo ko waxee nii nañ jàpp ne kilifa ga moo ko wax tey de bu ko sëñ Muntaxa waxoon doo dégg kenn wax ci su sëñ Mountakha waxoon ne Macky Sall sant naa la gërëm naa te yàgg na ko koo wax doo dégg kenn wax ci sëñ Mountakha yellente koo ne mu sant sëñ Macky Sall yellente koo ne mu sant Ousmane Sonko yellente koo ne mu parce que ñooñu doomi réew mi lañ mu bokk ci kilifa réew mi kon ku mu jiital am nga droit sant ku la neex kooku moom maam du duñ ak lu ñu ànd ak Pastef ànd ak Pastef amuñ ci nos amuñ ci nocc. ndax mbiru diine la duñ ci sori. duñ ci sori. Mm-hmm. Ah, tey Ousmane Sonko euh, parti Pastef Yewwi Askan Wi am na loo xamante ni ba tey gàllankoor la boo xamante ni tegal nañ leen ko. looloo tax sama yéen wi yi di waaj dugg si am na parti yoo xamante ni ba tey nanguñoo validé seen. loolu ngay wax moo tax sama yéen wi gën tey mm-hmm. yeneen yi moo daan génn wala doon bëgg doo rek rek moo daan génn ba nga may ba may bëgg a dugal APR may la bu ma fa dugal xet xet moo moo nëbbu bii gën tey xet wii xet wii génn moo gën a garaaw woowa xam nga wii mooy lan wii mooy signification képp ku tere Ousmane Sonko ak ñam ànd ak dem fañ bëgg dem yàlla xam na ne doo doo ànd ak jàmm yow it hmm? nañ gis xam nga lu ma bëgg hmm. nañ may nit ñi jàmm jàmm lañ bëgg ci réew mii jàmm jiñ bëgg ci réew mii kenn yoru ko ku président de la république monsieur ki Sall su bëggee jàmm am ci réew mi kilifa yi danañ fanaan ci jàmm ñun ñu fanaan ci jàmm amuñ lu dul Sénégal nañ bañ a taal réew mi te élection yii di ñëw gis nañ ci loo xam ne bu ñu amul chance yi yi passé moo gën yii ñëw yii passé moo gën a sedd fuuf yi ñu jëm barke Mouhamad deret ju bari dana ci deret ju bari dana ci tuuru suñu amul chance maa ko wax man Cheikh Niass nañ bi nu teg suñu amul chance gaawuñ génn ci yii ñu bëgg a def bu la bu la 3 juin bi passé ñu jëm ci élection deret di bëri am amaana mu tuuru takk deer yi nañ wattandiku seen bopp ba mu ñetti yoon takk deer yi nañ wattandiku seen bopp ñu uti ji kaaraange ñaan ci yàlla gone yi nañ uti ji kaaraange gone yi Pastef yi nag taxuñ may wax parce que arrêté naa mbooleem ko xam ne bokk nga biir Pastef jaara ci yeewi askan wi dina la ñaanal yàlla nga yëg ko ak koo yëg kenn ku ci nekk na boo tëddee nelawal ku bëgg kaaraange nag dawal nga dugg ci Pastef rek wala nga dugg ci yeewi askan wi boo duggee la jeex na jàmm nag nag moom moom la ñu xaar képp ku tere ñun maanaam suñu élection ñu ñu jàll comme nañ ko def nee naa la man pare naa pour campagne campagnal yeewi askan wi. man ciment la benn yoon laay tooy kenn mënu maa nger kenn mënuma jënd. waaw nu client yi def client yi la yaakaar nga baleem fi di campagne. ci ñoom laa nekk parce que ci lu neex yàlla laa nekk. Mm-hmm. lu neex yàlla ci laa nekk. clients yi suñ duggee ci wàllum élection yi boo déggee damay campagne man ci kurus lay campagne campagne yow ma di wër ki nangam aw ma jot boobu ña ma soxlaa bari man ci lii laay campagne kurus toog kurus adat adat turu turu yeewi askan wi mu jox la fa jamaan naawam jamaan nga adat ko turu Sénégal mu jox la nangam nga koy sikar li mu li nga bëgg yàlla xotti xol nit dugal leen ci ñu baatir campagne bi dem gagné man loolu laa bëgg ci kaw nag bu ñu bàyyee ñu jàll li tere bàyyiwuñu ñu jàll nag xam nañ ko li tere seen détails yeeg seen yi xam nañ ko ndax golo la gën a xam kër gu bëri xaj. 2-0 la ñu bañ. wala 6-0. 2 dafa tuuti 6-0 la ñu bañ. Ah. waaw 6 2 deux plus 2 plus 2 du 6. mooy élection député yi élection yi ak élection présidentielle yi ñu jëm. loolooy 6-0 moom la ñu bañ. sëñ bi euh, tey Cheikh Mahi euh, xalifa général def na jëf ju rafet jëf na jëf joo xamante ni. Ah, fierté euh, Afrique la waxuma la Sénégal. ah alaaji laaj nga ma. laaj nga ma lu ma neex alaaji dégg. kon xam nga fa ma laaj nga ma lu ma neex alaaji dégg waay waay alaaji dégg tax yenn télé ak yenn journaliste yi nekk naa féq lu tax ñu nekk saytaane. waa lu tax ma tey kilifa guñ gu wax ma kii fay wax na lii di wax na lii wax yu ñaaw yi kilifa yi rek moom la ñuy bëgg di jël di publicité di partagé xooluñ lu baax yi nit ñiy def màkk yu fay bu defee nangam joxe na milliard waxoo milliard am bi la wax rek nga def nga jàpp di publicité di dagg di dugal loolu pour lan nañ arrêté waxu kilifa yi ñuy jël di ko yàq waxu kilifa yi ku ko yàq dañ ko defaraat ndax fa nga koy defaree doo ko yëg dañ xot xotti dugal la ci nga xam ne sa ndey yëggu fa sa baay yëggu fa ñooñu seeni sëriñ yëgg nañ fa ànd ak yonent bi yonent bi taaw la wala ñu bàyyi la ñu duma la yaay xool bu la ci neex nga choisir kon Cheikh Mamadou Mahi ñi ngi koy ñu ngi koy félicité di la sant it yéen ñi ma ci laaj ndax bëri na sud fi ñëw te laajuñ ma ci laajuñ ci kenn it am na ci ñu bëri dañuy wër mbaambaalu fu ne ñu dem fa di wax ne nañ waxee woon ne bu sëñ Muntaxa di ñëw Dakar nag tijaan ñeeg ñëpp génn teeru ko waaye nag bii paa nag ñi ngi ñaan suñ mbokki murid yi chrétien yi laayeen yi xaadir yi mbooleem fu fu doomu aadama nekk na nga génn ko te xam ne ndamu l'islam la waaye ndamu Sénégal la ndax doomu Sénégal moo jógee fi dem régler ji problème réew ak réew réglé ko mu waroon président de la république Macky Sall pour mu jug dem réglé ji ko ndax moom moo ne moo nee na dafa bëgg a réglé diggante Poutine nag waaja te lii moo gënoon a yey Cheikh Modou Mahi dum jug régleel ko ko ñaata sëriñ ngay dalal fii duñ wax lu ñor duñ wax lu ñorut duñ wax ci luñ war a wax lii moo jar a wax mooy lan mooy Sénégal yëpp ànd félicité Cheikh Modou Mahi télé yi nekk si adduna bi nekk Sénégal France 24 et tout tous les télé ñu ngi ko jël di ko def direct waaye télé Sénégal yi caaxaan musique fecc dong. donc lépp lu ñuy immigré musiciens yi ñoo fay jiitu duñ oo alquran yi duñ o xasida yi duñ o kilifa yi duñ o doomu kilifa duñ oo tous respecté wuñ kenn waaye lii ñu ngi leen ciy xaar ba xam ñoom diine moo leen ñor wala ñoru leen ndax kat ndax kii dafa génn réewam dem régler ci problème ñu may ko mille ci bourse mille bourse lañ ko may ne fi ñëw état bi ñoo koy garante li nga def bëri na ñu mu warante defuñ ko waaye jàppee wuñ la ko sa bàyyi lañ jàpp na moo fi ñëw kon Cheikh Ahmadoul Mahi gàcce ngaalaama gàcce ngaalaama képp ku sant Ñas sigil nga ko waaye képp ku sant Mbàkke sigil nga ko képp ku sant Si gil nga ko képp ku sant Aydara sigil nga ko mboolem si sigil nga leen ndax tey buñ ne ko réglé lii ñu ne doomu sénégalais rek doy na ndam kon jërëjëf jërëjëf jërëjëf na ñëpp génn incha allah dem teeru ji ko ànd moom tatagal ko wan ko ne ko bismillah bismillah nañ teeree woon yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ca Medina ah maanaam man mënta àgg ci xol de waaye na àgg ci jëmm àgg ci ruu àgg ci lépp luy teraanga ñu wan ko ne ko bëgg nañ ci yow ñu suguma Abdoulaye mi la ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD mooy nañ waajal élection yi ñu jëm muy élection euh, député yi képp ku diina ñor na xam ne élection yi ñu jëm diine moo war a toog assemblée national wàllu góor jigéen ñi nañ ko canaliser bu mu amati waxu caaxaan yii ñu bëgg a wax bu mu amate alquran li mu wax ci ray gu bëri gi ana nafsa bi nafsin ku ray nañ ray nañ ko nañ ko daganal nit loolu laajoo ma ci waaye maa ngi jégalu alaaji Medoune nit mënta gën a mënta ëpp yërmande yàlla mi la bind yàlla moo wax ku ray nañ ray ku sàcc nañ dagg loxoom ku njaaloo nañ ko nañ ko dugal ci ci ci ci pax ray ko ak yeneen ak yeneen kon yooyu nañ ko xeex ñu dimbale ñi nga xam ne ñu ngi toog assemblée nationale ñoom nag bu ñu toogee nañ fexe bu buñ war askan bi ba lu askan bi bëgg nañ ci ànd ak ñun képp ko aajoom narta faju soxla lum rëy rëy rëy nga yori milliard daw nar a jëm ci si man yàlla boo yegg si képp ku sa aajo nar a faju boo yoroon dërëm ubbi impro bu mag bi jàkkaarlook man yàlla yàlla ommal la ba nga yegg si sa aajo faju sama nopp bi ak sama jëmmu ji soxla bu narta faju doo ma gis ba ñetti yoon sama jëmmu ji ak sama nopp bii soxla bu narta faju doo a gis ba muy téeméer yoon dañoo xam ismilahi azam pire et dire bi yëngal jamono di wàcc di di wa di wàcce fenkat yi di leeral fenkat yi di génne dëgg ñun kuñ bëgg képp ku nar ndax askan bi ñu bëgg ñu bëgg askan bi xam ne kii fenkat la ñu leeral ko te ci lañ jëm ñu ngi ci guddi yooyu noonu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax ne émission tey bi nag émission mbégte la ak kontante nañ war nañ ànd waajal élection yi jug campagnal président Ousmane Sonko kenn ku ci nekk na nga ko mënee na nga ko defee noona mu ànd ak discipline ànd ak yar ànd ak jàmm ak salaam moom nañ sàkku ci réew mi yàlla ko yàlla defal yàlla yàggal fi xalifa général yëpp may ñu jàmm site bi yàlla dëgëral leen ak mboolem ku leen di seetaan yàlla dëgëral leen képp ku leen di diir mbagg it yàlla bu mu yegg fa ngeen yegg ku comme neex na nag ma ci mere yaa xam wa ma zalika ala bi wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aco dégg ngeen waxtaan woo am solo wi Serigne mu nekk waxtaan woo xamante njariñ la nekk waxtaan woo xamante nii lépp ngëneel la kilifa la borom xam-xam la su waxee nga xam ne dafa am lu yàlla def ci moom su jëfee nga xam ne jëfkat la ngir cosaan li yàgg na ci kër gi kilifa yi fi ñëw laal li génn Sénégal xam leen bëri na mais tey fi jamono toll moo tax mu génne xam-xam bi génne li nga xamante ni moom mooy leget di te li des te génnewu ko nag moom moo ëpp ndax fii njax yi ma fi seen xeeti njax la yoo xamante nii boo fi duggee rek lépp lu ñu la mas def rek sa lépp toj mais sëñ bi am na loo xamante nii xaw tu ñu fàtte ko. kii kaddu kër gi. dama ko fàtte woon kii mooy kaddu kër gi kii du ma wax na ñàkk caa wax njàmbaas yàqul sër. Mm-hmm. kii mooy kaddu kër gi. Mm-hmm. góor bu ñu la yabee ca yow la mm-hmm. mbooleem ku daan wax ci ngóora tëj nga sa gémmiñ dañuy raa ñoom ñëw ci buntu kër gi ma leen jox ñuy taf seen étiquette di joxe waat kuñ jox bu mel nii sama si man la jógee kii mooy kàddu kër gi maa ko moom benn la fi dosage bi benn la fi ñàkk la man dara ñàkk la mënal dara sa jabar ñàkk la dara sa lal ñàkk la mënal dara ka nga nekk ak dawal ñëw usi borom def gis mu defal la nga gis wasalaamaaleykum wa rahmatullah ayca loolu pour kon wàllu sëy moo ko tax a jóg muy kàddu kër gi di ngóor ga di yaakaar naa loo xamante nii ñu ko jot a laal tey jii ñoom ñëpp sant nañ xam nañ ne kàddu kër gi doonatul sax lu ñuy publicité ndax sénégalais xam nañ ko xam nañ effet mii muy ah, def mbokk yi numéro téléphone Dofu Mame xalifa mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñuy suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah